ok in alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi nekk ci suratu zumar ci ay juróom benneel bi ci suñu borom di waxe ni xalaqakum min nafsin waxida kon ñi ngi sant suñu boroom di ko ñaan mu julli ci suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari jaamu yàlla yu mag yi ñu jóge benn bi mooy aj makka mboolem ña fa teewoon yal na yàlla yombalal leen ñu dellu seeni kër ci jàmm waaye jaamu yàlla yiñ fa def ak ñaan yépp yàlla nangu ko ca def ko njëriñu jullit ñi àdduna ak alaxira gannaaw ba it am na beneen jaamu yàlla bi fi jaaraat mooy li yàlla boole jullit ñépp muy feetu tabaski gi nga xam ne jullit ñi tuur nañ ci deret baril nañ ci ay zikr daje nañ ci julli yooyu yépp it di ay yiw yoo xam ne ñi nga ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu ko nangul allahuma ñu ngi sant suñu borom bi nga xamee ni ay xéewalam ci ay jaamam du jeex te it bokk nañu ci lu yonent bi alayhi salaam doon béggéli mooy ay julit du ñu dem mukk dajaloo ca néegu bi yàlla ba jël téere bi yàlla ba di ko jàng ci seen biir lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñu jataay bi kon insha allah suñu mbokk Cheikh Ousmane Niang ñi ngi nekk ci seen feet gi tabaski gi ba tey nibbiseegul looloo tax insha allah ndongoom lii di Alioune Sarr moo ñu fas yéene jàngal tey sunu bind bu jëkk di commencé ci xalaqakum min nafsin waxida te ngi noonu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم فلا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضى لكم فلا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلي ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ne eyeen doomu aadama yi xalaqakum min nafsin waxida bind na leen jële leen ci benn bakkan summa jaala minha zawjaha gannaaw ba mu def ca bakkan boobi lii di soxnaam sa wa anzala lakum min al an'ami samaniyata azwaaj daa di leen di wàcceel ci juru kër gi juróom ñett ci ay peer yaxluqukum fi butuuni ummahatikum mi ngi leen di moo leen di bind ci seen biiru yaay yi xalqan min baadi xalq bind gannaaw bindin fii zulumaatin salaas loolee am ci biir ñetti lëndëm zaalikum allahu rabbukum kooku dee nekk na yàlla ñi seen boroom lahul mulk mboolem moomeel yépp moo ko moom laa ilaha illa hu kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom fa anna tusrafuun ana fal ngeen di dëppi di wëlbatiku bay kay bokkaale in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum su ngeen weddee yàlla day ko woom leela ci yéen wala yardaa li ibaadihi alkufr du gërëm mukk ci ay jaamam nag ak kéeféer wa in tashkuru yardahu lakum amma su ngeen gërëmee lool day su ngeen sante lool day dana ko gërëm ñeel leen wala taziru waziratun wizra uxra du yenu mukk kenn kuy yenu kotu bakkaar di yenul kenn la nga xam ne mooy yenub moroomam summa ila rabbikum marji'ukum gannaaw ba yéen ñépp ci seen borom mooy seen delluwaay fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun mu xabaara leen ci lépp loo xam ne yéen a ngi nekkoon di ko jëf innahu alimun bi zaati sudur seen borom yàlla booba day xam na li nekkoon xam na li nekk ci biir dënn yi mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala biñ fi mujjee daje ci jiitu tabaski gi ñu ngi nekkoon ci suratu zumar borom bi di wax ay xéewal yi nga xam ne def na ko ci ñun bokk na ci loolu lay wéy mu ne ñun ñépp mi ngi ñu bind ci benn bakkan bakkan boobu mi ngi tudd aadama alayhi salaam loolu moom la jullit war a gëm bakkan boobu ca la génne loo xam ne ci la binde soxnaam sa muy suñu yaay hawa hawa sunu borom mi ngi ko génne ci faaru aadama alayhi salaam moo tax yonent bi alayhi salaam ni jigéen ñi yàlla bind na leen ci faar soo jógee nga ne sama soxna day dafa war a jub kocc mel ni ma bëgg loolu mooy da nga koo nar a fase rek ay fokk am looy muñe ci moom loolu mooy la jurit war a gëm am maa nag léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne dañuy woote woo ay jurit lañu di philosophie di wax naan xalaqa minha zawjaha naan loolu mooy cellule mâle cellule femelle kaza wa kaza bokk loolu waxi yéeféer la li nga xam ne diine yi dëppoo nañ ca muy yahudiya nasaraan ya ak lislaam ñépp mooy aadama alayhi salaam yàlla ko bind ci ban ñun ñépp ca lañu yàlla génne loolu muy benn ñaareel ba suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na moo ñu wàcceel ci jur gi juróom-ñetti peer anzala am na ñoo xam ne zahir bi lañ jël ay yàlla wàcc ci kaw suuf jur googe ca loolu itamit doomu aadama bu nekk war nga ñu xalaat lu nekk cosaanam fu mu jóge masalan premier xar fan la jóge premier fas fan la jóge ila axiri ala kulli xaal suñu borom mu ne moo ñu ko wàcceel ci kaw suuf mu nekk xéewal juróom-ñetti peer loolu boo delloo ci suratul an'am ma nga ko fay détaillé mooy minal iblis nayn giléem yi am na ca ñaar di góor ak jigéen wa minal baqari isnayn nag ya ñaar góor ak jigéen muy ñeent wa minal mazi minal daani isnayni ca xar ya ñaar góor ak jigéen muy juróom benn wa minal mazi isnayni bëy ya xar ak bëy ya góor ak jigéen muy juróom ñett ci ay peer yoo xam ne daanaka adduna bi yëpp xam nañ leen sunu borom yàlla tàggat leen ñu mel na suñu njaboot nga mën a gis ko am fii ay giléemam wala nagam ay xaram xëy bàyyi leen ñu dem dañuy dem wër lekk ba suur ngoon jot ñu nibbi siwaat mu ratt heure bu ko neexee tëral rendi heure bu ko neexee jaay donte la jur googu suñu borom yàlla ubbil nañu ci lu ñu koy jegeel moo tax mu ne wa li kulli ummatin jaalna mansakan yaskuru sma allahi fi ma razaqahum min bahimati al anam xeet yi fi jaaroon yépp utaloon naa leen feet goo xam ne daan cay mën a jege yàlla ci bàyyu ma yi gis ngeen feet gi ñu génn ni léegi di tabaski ana ñaata xar lañ ci rey waaye boo di mën màkka it hëdi yañ fay yóbbu ana ñaata giléem lañ fa rey ana ñaata nag ana ñaata xar képp koo xam ne nii jurit la bu judd xamal ne sa baay bu amoon kattan rayal na la xar bu dee ne say nopp gudd na ba nga dégg sa baay ray rayalu la woon xar sax war ngaa rayal sa bopp xar heure boo amee doom rayal ko xar zakat boobu yàlla tëral ko ci jur googu naka noonu la ñuy tudde ay diya muy waa ji dafa rey nit ñu ne ko na nga indi téeméeri giléem wala na nga indi ñaari junni xar ila axiri kon xéewal la goo xam ne bu ñuy jural nu ñuy bànneexoo ci àdduna waaye dañuy jegeel suñu borom jalla wa ala samaniyati azwaj borom boobu nag mu ne moo leen bind ci seen biiru yaay yi bind ci gannaaw bind ay bind gu bokkul bu benn bokkul ak moroomam mbokk li nga xamee ne nii moom mooy scientifique yi occidentaux yi jàpp ne ñoo yor xam-xamu àdduna bi ba ba début dix-neuvième siècle dañu jàppoon ne doomu aadama suy jóge ci baayam dafay tuuti nekk nit ku tuuti koo xam ne bët mënu koo gis su déggee ci biiru yaayam di màgg di màgg ba toll ni mu toll waaye fekk quatorze siècle avant la l'islam waxoon ne déedéet xalqan min baadi xalq la doomu aadama cosaanam amul lenn lum jege nit spermatozoïde ya koy formé mindaafan spécial la suñu borom dugal ko ci biiru yaayam quarante jours après suñu borom indi benn bindin min alaqa quarante jours après mu indi beneen bindin muduxa quarante jours après mu daal di koy soppi ay yax ila axiri ca loolu bokk na lu ñu leen wax fii biñ demee ba benn docteur Kissmore bu nekk ca Allemagne amoon prix Nobel de la paix ci wàllu embryologie ci mooy doomu aadama ni muy cosaanoo boobu xamagul l'islam bi mu dajeeg benn mbokkum jullit mu ne ko mën a di yéen découverte yi ngeen def alxuraan waxoon na ko depuis quatorze siècle dafa ne ko non loolu c'est pas possible ñu indil ko Coran bu ñu traduire mu daal di gis exactement ni ko science gisee noonu la ko alxuraan waxoon depuis quatorze siècle mu daal di tuub dugg ci lislaam édition ya topp ca édition yam génnoon ci livre ba fépp fu mu gisoon ay découverte scientifique yu njàpp ne science da caa avancé mu daal di indi aaya alxuraan bi méngoog moom xam ne lii alxuraan waxoon na ko depuis quatorze siècle kon suñ borom mi ngi noonu waaye léegi nag yow ñu dellu borom boobu ne loolu maa ngi koy def ci gannaaw ñetti lëndam da nga xam ne mooy biiru jigéen bi la nga xam ne moom mooy roxm bi la nga xam ne mooy placenta ba nga xam ne ca la doom bi nekk gannaaw ci matrice ba placenta ba muy ñetti lëndam yoo xam ne yow doomu aadama fa nga nekk suñu borom fekk la fa waaye mbokk xoolul doomu aadama bu ko yàlla bindee bu génnee ni muy mel bët yi tolloo loxo yi tolloo tànk yi tolloo lépp tolloo bal suñu borom yàlla bind la fi bindin boo xam ne signature spéciale la man nga wër planète terre ba mu jeex doo fi gis ñaari nit ñu bokk ndax gars yi loolu am na déedéet nem leen wóor ne jàkka ji kenn bokkul ak sa morom amul ñaari nit ñu bokk bokkuñu ci dara du seen melokaan du seen waxiin du seen dara ba tey tey tey buñ jëloon masalan ku mel ni général de Gaulle masalan ñu teg ko ci rajo bi bu ñu laajee xale yi ñu xam ne baat bi baatu de Gaulle la moom rek moo ko am ci kaw suuf am déet ñu génn Michael Jackson masalan ñu ne kii Michael Jackson la moom rek moom baat bi ci kaw suuf melokaan yi it noonu la mel kon suñu borom mu ne ci biir ñetti lëndëm yooyu daa leen fekk bind leen fa bindin boo xam ne ba ma neex ñii ma ñuulal leen ñii ma jonal leen ñii mu weexal leen ñii mu def leen ay ñu xonq fi zulumati salaas borom bi nag mu ne kii mooy yàlla mi leen moom di seen borom ca it moo moom lépp lu mu mën a doon lahul mulk moom moom asamaan yi moom moom suuf moom moom alal ji moom moom njaboot gi moom moom ngelaw bi ngeen di noyyi moom moom ndox bi ngeen di naan lahul mulk lépp moo ko moom waaw doomu aadama fan la wëlbatikoo nag bay wëlbatiku di jaamu keneen ku dul yàlla fan la wëlbatikoo bay wëlbatiku di sant keneen ku dul yàlla fàtte yàlla lii mbokk moo tax suñu borom ne mooy yéen fa anna tusrafoon borom bi nag ne lépp lu nekk ci yéen ci xéewal maa ko ci def commencé seen jëmm ji maa la fekk sa biiru yaay indi la fay bët indi la fay nopp indi la fa lépp loo soxlawoo léegi soo weddee man yàlla ghaniyun ankum yàlla ko wam la ci yéen te mbokk jullit da ngay gëm ne la planète Terre buñ ko génne woon tey ci moomeelu gu yàlla gi du toll ne benn pepp suuf boo génne ci jàkka ji pepp suuf bi nga génn ci jàkka ji moo ëpp importance planétaire yépp par rapport ak liñ doomu aadama xam ci univers bi kon yàlla soxlawu leen rëy yun am ko am naa nag suñu borom yàlla mu ne du gërëmal ci jaam yi kéeféer même bu ci ñëpp dëppoo woon mbokk li yàlla bañoon jamono yeneen ci bi alayhi salaam tey lu ko gën a bañ loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñu bëri nag dañuy dem ba mbir day dem a dem ak lii de moom kenn mënatu koo bañ wallahi bu dee nit ñi mënatuñ koo bañ tey la ko yàlla gën a bañ laa yarda li ibadihi al kufr amma nag mu ne wa in tashkuru yardahu lakum bu ngeen ma santee nag loolu dinaa ko gërëm donte na jëriñu ko dara waaye yàlla ku julli mu kontaan ci yow lu ko julli ngay jëriñ dara ku wóor mu kontaan ci yow ku aji màkk mu kontaan ci yow ku génn sarax joxe mu kontaan ci yow lan la ko jëriñ dara la ko jëriñul waaye quand même gërëm na jaamam di ko sant borom boobu it dañu xamal ne alaxira bii di ñëw règle yi am ci àdduna amul foofu àdduna da ngay gis ko am bor mu jaaxal ko mu dem ci nit mu fayal ko ko àdduna da ngay gis ku ñuy toppe ay coono mu am ko ko ko teggil mu ne nag alaxira kenn du fa yenu bakkaaru kenn amul kenn kuy gàddu bakkaar kuy gàddul bakkaaru kenn borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne xam leen ne ci yàlla ngeen di dellu wax nañu suñ cosaan moo ñu bind suñu biiru yaay génne ñu dam ñu génnee ndax dañoo bàyyi déedéet di ñuy continuer alimenté ñuy dema dema dem ba mujj mën a jóg toog mu yokk dose bi ñu dem ba mujj mën a raam mu yokk ñu dem ba mujj mën a taxaw mu yokk ñu muy mujj dem suñu soxla mujj ñuy naaw ay avion waaye fu la neex wëral ci kaw suuf xamal ne bis dana ñëw ñu delloo la ci yàlla dégg nga noonu bis dana ñëw delloo la ci yàlla ila rabbikum marji'ukum léegi nag bis bu ngeen delloo ci yàlla borom bi mu ne lépp lu ngeen mas a def ci kaw suuf ma nettali leen ko lépp lu ngeen mas a def ci kaw suuf ma nettali leen ko ca du yem ci wax ñu jëf yi ñu doon jëf waaye da ciy boole yii ne ya ko lal looloo tax ñaari nit daañ bokk lu ñu jëf ñu yàlla atte leen kenn ki mën a ko demal aljanna keneen ki mën a ko demal sawara lu waral loolu mooy kii bi muy def ngërëmal yàlla yàlla taxoon amaa kee lam doon def ma ngi ko doon def ngir intérêt àdduna ak ak naafiq su ko defee loolu mu lay jàngal ne ni ngay war a góorgóorloo sellal say jëf noonu nga war a góorgóorloo sellal say yéene yàlla na yàlla yombal ko ci ñoon bismillah
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي قل الذين يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب barakallahu fiik suñu borom mu ni wa ida massa al insaana dorr heure bu dee dafa laal doomu aadama lor daa rabbahu muniban ilayhi mu jóg woo boroomam di jéng di jëm ci moom summa ida xawalahu nicmatan min waaye heure boo xamee ni nii xéewal na ko ay jox na ko ay xéewalu bawoo ca yàlla nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu mu fàtte lam nekkoon di ca woo jëme ca lu jiitu wa ja'ala lillahi andaadan li yudilla an sabili mu nekk di defal yàlla la nga xam ne mooy ay ay nuñ koy dendeleel ay bokkaale ngiree mu daal di sànku ca la nga xam ne mooy yoonu yàlla qul tamatta bi kufrika qalila neel bànneexul ci sa kéefér gi tuuti rek innaka min ashaabi naar yow day nekk nga ci ñi nga xam ne ci ñooñu sawara lañ bokk am man huwa qaanitun ana alleyli amu ndax kii nga xam ne mi ngi nekk di toroxlu ca biir waxtu guddi ya saajidan wa qaa'ima di sujuud ak taxaw yaxzaru al axira ma ngay nekk di fuglu ay di ragal lay xew allaxira di fuglu allaxira wa yarju rahmata rabbi di yaakaar yërmaande boromam qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun neel ndax dana yem ñi nga xam ne dañoo xam ak ñi nga xam ne xamuñu innama yatazakkaru ulul albaab neel day xamal ne dana fàttaliku ña nga xam ne ñooy borom xel yu mag ya qul yaa ibaadi alladina amanu neen ay yéen sama jaam yi nga xam ne da ngeen a gëm ittaqu rabbakum ngallaway ragal leen seen boroom lilladina ahsanu fi hadihi dunya xasana dana ñeel ñi nga xam ne dañoo rafetal ci dundub adduna gi la nga xam ne mooy lu rafet lu leen di ñeel wa ardullahi wasia amma suufa si yàlla si moom lu yaatu la innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi xayri xisaab dees na matalal muñkat ya seen pay ci lu àndul ak benn réglé buñ leen di réglé mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi wax la ëpp ci ay jaamam nan lañu mel mooy heure bu lor dalee seen kaw dañoo feebar ba saalit dañoo ñàkk ñàkk gu tar dañoo tumuranke am na luñ bëgg ci àdduna amuñu ko dañuy nekk di woo yàlla di dellu ci yàlla di toroxlu ci kanamu yàlla loolu mbokk mooy li ëpp ci nit ñi liñ daan def sunu borom nag ne bu ma ko bettee ci ay xéewal goo xam ne ci man la jóge gis nga lor ga moom dane bu lor dalee doomu aadama ndax lu bari ci lor guy dal doomu aadama moom moo koy sabablu amma xéewal guy jóge ci yàlla loolu moom mbaaxug yàlla kese la lum la dolli ci xéewal mbaaxam la borom bi nag nee na su booba mu fàtte yàlla moom doon woo daa di commencé di sant keneen ku dul yàlla loole doon loo xam ne dana nekk lu muy sanku di sankaate te la nga xam ne mooy yoonu borom boobu subhanahu wa taala ku muy waxal ne ko ah man day xéewal ga ma suñ diw defal man day nangam defal te loolu mbokk julit yàlla waxoon ñu depuis quatorze siècle dañuy gis ne mooy lii am ba suñ jamono yi tey ak bari tey ay doomu aadama yu jàpp ne xéewal ga leen dikkal keroog bañ woo keñeen ku dul yàlla lañ ko am ba wax naa leen ko fii sunu tafsir bu mujj ki nga xam ne moo jiita mbalaxkatu Sénégal yépp nga xam ne bu dee xéewalu àdduna moom dëgg-dëgg am na ko nee na nag kaay ma wax leen sama secret mooy lépp lu ko mas a jaaxal su ne yaa suñ jiw juróom-ñaari yoon rek bal ba tàkk na loolu mbokk mooy wax ko sunu rajo yi sunu télévision yi mu wër àdduna te amul kenn ku koy weddi lool it muy wañe ne doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne paase nañ fa yéeféer ya yemoon te loolu lenn ci suñuy maam daana ko wax kéefir ga woon moo tane diine tey ji ndax yéefir yu jëkke yi bu ma saan ñàng ba ñàng yàlla kese la ñuy woo duñ ko bokkaale am naa ñi ci tey bu jafee ñi ngi bokkaale yàlla bu xiiwul ñëwee nag waxi noppi moom ñu ngi noonu bu xiiwul ñuy waxi noppi waaye même seen jamonoy jafe-jafe dañuy bokkaale ah ak seen borom wallahi ñu ngi may nettali benn mbir bu doy waar benn accident bu amoon fii ci bi boolu Louga benn jigéen ñi bopp baa nga toj waaye lan lay wax tey waaye wal leen ma sëñ diw wal leen ma sëñ diw wal leen ma sëñ diw ba sedd guyi ñu ngi noonu xoolal mbokk julit ku mel noonu nga xam ne dañuy jël xolam branché ko ci sëñ diw moom mu muy wax te sëñ diw moom muy wax yàggul dara mu faatu bi muy faatu il était condamné ci benn cancer boo xam ne mënu ci dara médecin yi mënuñu ci dara xoolal ku mel noonu mbokk julit bu doon dañ koo yar ci laa ilaha illa allah mu xam ne jafe-jafe bu mu mën a am coono bu mu mën a nekkee warul woo ku dul yàlla jalla wa ala xoolal bu doon tene ba muy faatu mi ngi naan laa ilaha illa allah xoolal ba muy faatu bu doon mi ngi naan ya allah ya allah ba faatoo loolu kon ajjana may wàcc waayam mais xoolal di faatu amuloo faatoo lu dul mujj woo sa mbokk sa sa moromu julit jàpp ne mën na la xettali su ko defee kon loolu mbokk nañ ci bàyyi xel bu ñu nekkee ci jamoy jafe-jafe nañu woo yàlla sellal ko diineem loolu day yéeféeri sax loolu lañ daan def waaye xëyool gu ñu mën a dikkee nga la waaye buñ ci sant kenn ku dul yàlla jalla wa ala borom boobu subhanahu wa taala nag wëlbati ko daa di ne ay yow banneexul ci sa xëyool googu tuuti ah bu dee quatre-vingts ans nag suñu borom mu ne lu tuuti la cent ans nag lu tuuti la bokk mataa u dunia qalil am déet nekkal président nekkal milliardaire banneexul tuuti rek xamal na sawara mooy sa wàccuwaay maadaama yaa ngi bokkaale ak sa borom borom boobu nag indi contraire kooku contraire kooku mooy ki nga xam ne sunu borom nee na ma ngay toroxlu ci waxtu guddi ya ana allay te mbokk naafila lu baax la waaye gën naa baax na xaaju guddi ngi noonu ngalawaay jurit del bàyyi xel xamal ni guddi gu nekk suñ demee ba ceeru guddi ga des ay trois heures wala trois heures mooy suñ borom yàlla mi ngi woo ay jaamam ku may ñaan ma may ko ku may jéggalu ma jéggalu ko kuy sàkku ci man xettili ma xettili ko bu baa fajar di jot suñ borom nag mu ne xoolal ki nga xam ne moom mi ngi jóg bàyyi ab lalam toroxlu ca waxtu guddi yooyee doon kuy taxaw doon kuy sujuut ca it mbokk guddi loolu lañ koy dundale am na ñoo xam ne day saan daañ teere yow xaaju ko di waaye dañu daal di xëcc seen kurusu junni na bëcc ci seen kanam yaa latif yaa latif yaa latif quinze mille fois ah samat samat ba lu ne ñu créé ko mbokk loolu yeneen ci bekk saxaabaam daawuñu defe noonu bal diine yu jëkk yi sax daawuñu defe noonu wa min ahli alkitab ummatun qaima yatluuna ayati llahi ana allayli wa hum yasjudun guddi lañ koy màggale mooy taxaw di julli di taxaw di rukkoo ko sujud di jàng téereb yàlla bi mi ngi noonu ana allayli kooku mi ngi rukkoo mi ngi sujud waaye xoolal bokk man ca boole borom bi nee na ragal la muy fekk àllaaxira donte ni mi ngi yaakaar yërmande boromam te mbokk lii mooy tax a mucc mooy sa xol bi nga ragal ci mbugalu yàlla yaakaar ci yërmande yàlla képp koo xam ne sa xol ragal yàlla nekku ca xol baag jëmm ji yépp sa wara la yeyoo waaye képp koo xam ne yaakaarul xéewalug yàlla xol baag jëmm ji yépp sa wara la yeyoo looloo tax ñaar yooyu ngay boole mooy yaakaar ak ragal yaxzaru wa yarju mi ngi ragal alaxira mi ngi yaakaar yërmande yàlla te bi muy ragal alaxira mi ngi bàyyi ay nelawam rocceeku xaaju guddi taxaw ci kanamu borom bi subhanahu wa taala borom bi nag ne ndax ki nga xam ne ñi dana yemoo ñi xam ak ñi xamul déedéet amma waajee nga xam ne ma ngay bànneexu ma ngay puukarewu ma ngay def la ko neex moom jàpp ne kenn du ko jiitu aljanna te day nelaw ba jant bi tàngal yarama muy doog a jóg amma borom xel bi moom da ngay gis borom bi nee na lii lay fanaane guddi teewul mi ngi ragal boromam subhanahu wa taala borom boobu nag ni ñiy xalaat jëriñu mooy ulul albaab mooy ñi nga xam ne seen xel dafa mat ñoo xam ne adduna gi kërug nattu la waaye ci seen borom subhanahu wa taala fa la ñu jëm borom bi daal di woo ay jaamam daal di ne ay yéen samay jaam yi nga xam ne da ngeen a gëm ay waay ragal leen seen borom ittaqu rabbakum ay fexe leen ba xam ndigili yàlla ngeen def ko xam tere yàlla ngeen bàyyi ko nu ñuy ragale yàlla départ ba mooy fii ngeen toog ak bépp place bu ñuy jàng diini fa la ñuy ragale yàlla kenn mënul ragal yàlla ci xamoo li yàlla bëgg ak li yàlla bañ am déet ngi noonu su ko defee kon ragal leen yàlla mooy fexe leen jàng ba xam ay ndigalam xam ay tereem ngeen taxaw ci ndigal yi bàyyi tereem gannaaw yàlla wax ni ñu ne ñi rafetal ci àdduna jii day danaa leen may ci àdduna lu baax may leen alaxira lu baax te mbokk julit diine mi ngi noonu mooy benn garantie bi nga xam ne soo saxee ci gëm yàlla ba nga ko bokkaale def ay ndigalam bàyyi ay tereem ay yow ndawal julit mooy garantie bi gën a màgg ci ne yàlla dana la may dund gu dal ci àdduna may la teraanga alaxira man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mumin fala nuxiyannahu hayatan tayiba képp koo xam ne da ngay def lu baax góor nga wala jigéen nga boole ci gëm yàlla mu ne danaa la dundal dund gu tey dalal sa xel ci àdduna mi ngi noonu du ne dinaa la may ay milliards ak millions ndax milliardaires ak millions yi ñi nga drogué wu ak xaroo ko loolu kenn xamul mbokk dund gu neex dund gu tey loolu ci yàlla lay jóge yàlla may leen dal xel même benn soxna nga am benn doom nga am ila xëri amoo ko lu mu mën a doon yooyu yëpp amul problème ala kulli xaal suñu borom mu ne danaa dalal sa dund ci àdduna ci àllaaxira ma may la fa la nga xam ne mooy lu baax borom bi nag ne ñu ngiree jaamu ma day sama suuf bi day lu yaatu la yaa ngi ci kër sàngam mënoo faa jaamu yàlla génnal kër googu uti beneen kër quartier bi mu ne fee jaamu yàlla toxul quartier bi dem beneen quartier dëkk bi mu ne fee jaamu yàlla toxul dëkk bi dem beneen dëkk xatta réew mi mu ne fee jaamu yàlla demal beneen réew te it ñu xam ne lii di Amérique ak Espagne ak Mali ak Mauritanie suñuy tur rek la waaye mbokk suuf bi benn suuf la suufa si yàlla la am déet moo tax mu ne ar wa ardullahi waasia foo mën a dem ba man faa jaamu yàlla demal foofu doonte ne mbokk li ëpp ci doomu aadama yi tey li tax ñuy immigré ñaara koy waral mooy daw ay fitna comme ñay daw guerre yi nekk Syrie ak Irak ak Libye ak feneen wala sakku ji alal waaye niw ne tey nit ñi di immigré ngiree rek ñoŋal dawale seen diini waaye ngal la waay xamal ne li gën a màgg alal li gën a màgg bakkat li ñuy sëbee ca guerre ba mooy sa diine fépp foo nekk bëgg faa dund diine yàlla ji sottewul tuxal dem feneen ca heure boo jógee di tuxu ngir dund sa diine suñu borom mu ne yajid fil ardi muragaman kasira fokk yàlla yaatalal la foo xam ne boo demee da nga fa fekk xéewal yu gën a rëy la nga bàyyi gannaaw comme nam ko defaloon sahabatul kiram bañ gàddaay yi jóg a makka dem madina xéewal yeneen yàlla teeroo madina moo ëpp téeméer yoon la nga xam ne bàyyi nañ ko makka borom boobu nag ne dana matalal ñi muñ seen pay pay goo xam ne amul fu muy yem assabiruun looloo tax mbokk amul lenn luñ gën a yaakaar alaxira lu mel ni muñ ndax bu yàlla defee julli yaag yeneen ak yeneen nee na muñ ñoom ñii muñ bu ñu leen di fay yawmal qiyaama kenn du calculer yàlla jël la ko neex rek jox leen donte ne mbokk muñ boobu ñetti mbir la ba ca gën a màgg mooy muñ ba def ndigali yàlla yi muñ ba bàyyi tere yàlla yi loolu mooy muñ bi gën a màgg ci muñ yi bokk na ci muñ yi ba tey muñ la nga xamee ne nii mooy nattu yi yàlla subhanahu wa taala di teg ci yow te xamal ne ne nattu bi yàlla subhanahu wa taala di teg ci yow du loolu moo lay jox xéewal waaye muñ gën koy muñ moo lay jox xéewal accident ngi nii wal yawzu billah ñaari nit jóge ci ñoom ñaar ñëpp seeni tànk dambatoo masalan kenn ki ma ngay jóg di ah rëbba ka wax lu bon saagite ka yu kenn xamul dana boole accident ak bàkkaar yu dul jeex am naa kee moom ma ngay jóg sant yàlla alhamdulillah dellu ci yàlla su ko defee yàlla dana ko sottil ay xéewal kon sa doom di dee sa alal di yàqu sa lu mu mën a doon du loolu moo lay jox ngëneel du loolu moo lay jox ngërëmal yàlla mais la lay jox ngërëmal yàlla mooy muñ gu rafet ga nga muñ bi yàlla tegee ci yow ab nattu moo tax mu ne bashiri sabirin mi nga noonu nga xam ne bi leen musiba dalee dañuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala donte ne ne léeg-léeg it am natt yoo xam ne nii dana la jóge ci jaami yàlla yi yooyu tamit dañu xam ne muñ gën koy muñ ca yàlla tax loolu it ci lu yàlla subhanahu wa taala gërëm la mu ne ñooñu dañu leen fay fay goo xam ne amul fenn fu mu yem mi ngi noonu
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما جئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
suñu borom subhanahu wa taala mu ne qul inni umirtu an abuda allah neel man yonent bi day yàlla digal digal nañ ma ci ma jaamu yàlla muxlisan lahu diin di ko sellalal diinim ji wa umirtu li an akuna awwal al muslimin dañ ma digalit ma bokk ma nekk njël bi ñu ca ña jébbalul yàlla qul inni axaafu in asaytu rabbi neen man de ragal naa bu ma moyee sama boroom azaba yawmin azim mbugalu bis bu màgg qul illaha abudu muxlisan lahu diini neel man de yàlla kese lay jaamu sellalal ko sama diine faabudu ma shi'tum min duuni yéen nag jaamu leen lu leen neex gannaaw yàlla qul inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum neel ñi nga xam ne ñooy ña perte dëgg mooy ña nga xam ne dañoo perte seen bakkan wa ahlihim yowm alqiyaama pertaale seenu njaboot it yowm alqiyaama ala zalika huwa alxusraanu almubin la am day mooy loolu mooy pertaange gu leer gu bir lahum min fawqihim zulalum min annaar dana leen ñeel ci seen kaw la nga xam ne moom mooy ay këri sawara mooy ay niiri sawara yu leen féete kaw wa min taxtihim zulal ak ca seeni suuf it dana fa am la nga xam ne nii moom mooy ay këri sawara yu leen féete suuf zalika yuxawifu llahu bihi ibada lii day mooy la yàlla di ragale ay jaam li la yàlla di tiitale ay jaamam yaa ibaadi fattaquun ay yéen samay jaam ragal leen ma walladina jtanabu taaxuuta an yacbuduha ña nga xam ne nag dañoo moytu lépp luy xërëm ci ñu koy jaamu waaye wa anaabu ila allah ñu daal di dellu jëm ca yàlla lahumul bushra ñooñ dey dana leen ñeel ak mbég fa bashir ibad déggalal ma la nga xam ne mooy jaam yi mi ngi noonu bokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jël suñu royukaay bu màgg nga xam ne ab jullit moom dong la war a jàpp muy sëriñam bi gën a mag ci sëriñ si xamal ne moom dong lañ lay laaj boo tabbee sa bàmmeel xamal ne moom dong la waa sawara di riccu analu teewoon ñu topp ko yonent boobu suñu borom nee na ko waxal mbooloo mi ne man day du ma yàlla du ma nawle bi yàlla bal man dañ ma digal ma jaamu yàlla ca sellalal ko diineem duma ko ci bokkaale ak kenn ñaareel ba it digal nañ ma ma nekk njëlbeenu ñu ko jébbalul njëlbeenu ñu ko jébbalul na am mbokk jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lum ñu mas a digal moo ca jiitu woon lum ñu mas a tere moo ko jëkk a bàyyi mu uteeg lenn ci doomu aadama yi dañ jàpp naa ak yi de moom suñ sekk nag moom moom moom ay boromi may lañu nuróowul ak ñun ko neexee naan sàngara yoonu kenn néewu ca ko neexee takk cinquante cinq femmes yoonu kenn néewu ca ndax ñoom dañoo am ay may ay borom yi sañ-sañ ila axiri loolu mbokk da ngay gis sa yonent yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam moom nee na maa jiitu ci nangul yàlla moomu moo tax daana wax maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla keroog bi ay nit ñëwee ci moom daa di laajte ak jaamu yàllaam ñu wax leen am ñenn ci ñoom ne dootuñu dogati kóorug bëccëg ñenn ci ñoom ne dootuñu nelaw guddi dañuy fanaane naafila ba mu ko yëgee da leen woo ne leen hey maa leen gën a xam yàlla gën leen ragal yàlla waaye damay woor di dog damay naafila di nelaw ilaaxir kon yeneen ci bàyyi ngi noonu loolu it moo tax ba yow julit xamal ne jaamu yàllaam nga mënoo koo dab mënoo koo matal kon gaa yi ndax xel nangu la nga cay dolli leneen lu lu lu daawul def déedéet xel nanguwul loolu yàlla mu ne mooy suñu royukaay ca nee na ñun mënuñu koo dab kon loolu mbokk lu mu ñuy won mooy nañ fexe tënku ci sunnaam góor góorlu bañ caa yokk dara waaye ana awalul muslimin loolu julit da ko war a déclarer moom tamit ay pare naa nekk benn jaamu yàlla ci kaw suuf ca mbokk ibrahima alayhi salaam mas na nekk benn jaamu yàlla ci kaw suuf moo tax suñu borom ne inna ibrahima kaana umma am na benn jamono ibrahima kese moo doon wax laa ilaha illallah ci kaw suuf yow it julit conviction boobu nga war a am ba tey bu àdduna yépp bàyyi woon diine lislaam man pare naa nekk benn jullit ci kaw suuf ba àdduna bi yépp bàyyi woon julli pare naa nekk benn jullikat ci kaw suuf jigéen bi jàpp ne bu àdduna bi yépp sànni woon seen muuraay pare naa pour nekk benn jigéen bi muuru ci kaw suuf ba àdduna bi yépp daje woon ci lekk riba pare naa ci nekk benn jullit bu dul lekk riba ba baa ndigal yeeg tere yi jeex ana awalul muslimin baram boobu subhanahu wa taala wëlbati ko it daa dina yonent bi waxal mbooloo mu ñu dégg waay nee leen man ragal naa su ma moyee sama boroom mbugalu bis boo xam ne bu màgg la gars yi lii yàllaa ko wax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma doomu aadama yi créé nañ ay mbir ku sant nangam du lakk ab shérif du lakk ku nangam mbokk loolu suñuy wax rek la waaye ki gënoon ci jaami yàlla yi doon dox ci kaw suuf day suñ borom nee na ko waxal ñu dégg ne ragal naa su ma mayee sama borom mbugal bu tar bu may xar yowmal qiyaama waaw léegi nan la ñuy wax kii ab sëtam la wala kii joxaaña la sant wala kii mbeng la sant ñu ne maadaama jiwéy maamam kon moom lu ko neex def àddina la jëm mbokk loolu suñuy wax rekk la waaye bokkul ak la yàlla subhanahu wa taala wax moo tax borom bi subhanahu wa taala ne néew yonent bi ne leen man yàlla kese laa koy laay jaamu sellalal ko sama diine léegi nag ku leen neex yéen yéefiri jaamu leen ko ku leen neex jaamu leen ko ay suñu borom yàlla ci àdduna su ko neexoon kenn du jaamu keneen ku dul moom waaye bokk na lu may doomu aadama ñi teg jinne mooy lu leen neex def leen i'malu ma shi'tum ko defee ñee créé ne kii doomu yàlla la di ko sujuutal ñee jël aw seenu nag di ko sujuutal ñee jël seen morom ñit ilaaxi suñu borom mu leen lu leen neex def leen fa'budu ma shi'tum min duni lu leen neex jaamu leen waaye nag xam leen dañuy perte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñan mooy ñi nga xam ne perte nañu seen bopp boo ko perte sa bopp munta paase perte ajjana dem tabbi sa wara perte ajjana dem tabbi sa wara gannaaw ba perte sa njaboot te lu ëpp ci doomu aadama yi li tax ñuy kër këri ci àdduna pour seen njaboot a tax waaye njaboot googu boo jaarul fi neex yàlla ñaara mën a am benn ñoom jaar nañ fi neex yàlla ña nga ci ajjana nekk say noon di kontaan ci mbugal gi la yàlla di mbugal wala ngeen ànd bokk dem sawara c'est la même chose yéen ñëpp perte ngeen borom bi ne kon ñi perte dëgg mooy ñi perte seen bakkan perte seen njaboot lii mooy perte gi gën a màgg ci perte yi lii mooy perte gi gën a màgg ci perte gi borom bi ne sawara nan lay demee ci ñoom dañ leen fa dugal sawara bi di leen tël ni xale yi def bal yi mi ngi noonu ci seen kaw sawara fa nekk ci seen suuf sawaraa fi nekk bu ko defee nit cin di baxee caami ni xam ngeen koy ñebbe yi ñu ci def di balax balax yi noonu la yéefar yi def ci biir sawara mi ngi noonu kaw ak suuf yépp fu ne mbugal ba di leen fa jóge borom bi subhanahu wa taala ne kon lii mooy la leen di xaar borom bi ne lii lay ragalloo samay jaam ay yéen samay jaam ragal leen ma ca mbokk jullit jullit dafa war a ragal sawara ba baa buy mucc ci sawara yal na yàlla muccal ñu ci sawara mi ngi noonu mi ngi noonu amul kenn koo xam ne dafa rag dafa ñàkk ragal sawara lu dul ku nar a nekk matum sawara waaye mboolem yeneen ci yàlla yépp bokk na luñ doon ragal mooy sawara mi ngi noonu yaa ibadi fattaqun amma nag suñu borom yàlla wëlbatiku ne ñi nga xam ne bàyyi nañ taaxuut lan mooy taaxuut mooy lépp lu ñuy yaakaar ci du yàlla di ko jaamu ci du yàlla nit la jinne la malaaka la bàyyi ma la lum mën a doon ña nga xam ne ñoom sori nañ ko dellu ci yàlla wéetal ko sunu borom yàlla subhanahu wa taala day mu ni ñu mel nii day dana leen ñeel ak mbég ay yow yonent bi bégaleel samay jaam mbég boobu mbokk julit da ngay gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax julit de yàlla dana ko bégal ci gént gu rafet nga gént yàlla dafa lay ay xéewal ci alaxira mbég bi dana nekk ci nit ñu baax ñi seedeel la sa mbaax nit ñu baax ñi rek laa wax jaamu yàlla yu baax yi seedal la sa mbaax mbég boobu da ngay gis ne dana nekk heure booy faatu malaaka yi di ñu ñëw wër la di la bégal heure boo wàccee sa bàmmeel malaaka yi di la bégal heure boo ñëwee génn yowmal qiyaama ñu lay bégal ba baa ngay dugg biir ajjana ñu ànd fa ak yow di la bégal moo tax suñu borom daldi ne ay yow yonent bi bégalal jaam yi ca mooy ñan waaw mi ngi naan baax na Cheikh Alioune waaw
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب barakallahu fiik suñu borom subhanahu wa taala mu ne bégalal jaam ya allazina yastami'una alqawlu ña nga xam ne dañuy déglu kaddu ga fa yattabi'una ahsana ñu topp la ci gën a rafet ulaika allazina hadahum allah ñii day mooy ña nga xam ne ñooñu mooy ña nga xam ne yàlla jubal na leen wa ulaika hum ulul albaab ca ñooñu day ñooy ña nga xam ne ñooy borom xel yu mat ya afa man xaqa alayhi kalimatul azab amu ndax ki nga xam ne dafa yey ci moom kaddu mbugal afa anta tunqizu man fi nnaar ndax yow yaay musal ki nga xam ne dafa nekk ci sawara lakin allazina taqaw rabbahum waaye ña nga xam ne ñoom dañoo ragal seen boroom lahum xurafum min fawqiha xurafum mabniya dana leen ñeel la nga xam ne mooy ay taax ca kaw taax yooyee yeneen taax yoo xam ne dañ koo tabax tajri min tahtiha al anhar muy daw ci suufam la nga xam ne muy ay dex waad allah waad allah lii de mooy dugub yàlla laa yuxlifu allahu al miaad yàlla day du wuute ak i digam alam tara ila alam tara an allaha anzala min alsamaai maa mu ndax gisoo ne yàlla day daa wàccee ci asamaan am ndox fa salakahu yanabia fi l ard mu tabbal ko la nga xamee ne ay yoon lay doon ay tiwo ci biir suuf summa yuxriju bihi zara gannaaw ba mu génne ca loolu am mbay muxtalifan alwaanu moo xam ne dafa safaanoo lool ay melokaanam summa yahiiju gannaaw ba lépp day mujj lax fa taraahu musfarra nga gis ko moo xam ne nii lépp dafa doon lu ñuy joonal mu mu daal di jaune summa yajaluhu xutaama gannaaw ba mu def lépp mu doon am mbopp mu wow koŋ inna fi zalika la zikra nekk na ci li day ak fàttali li ulil albaab ñeel borom xel yu mag ya mi ngi noonu bokk suñu borom mu ne déggalal ma samay jaam yiy déglu kaddu ga topp la nga xam ne moo ci gën a baax loolu mbokk ab julit mooy ki nga xam ne dafa xam ne kaw suuf ñaari wax fi nekk wax yuy woote ca ngërëmal yàlla ak wax yuy woote ca yoonu seytaane ba jëme sawara su ko defee yow julit dëgg yaay ki nga xam ne yaay déglu kaddu yi daal di ci am ak ràññee topp la ca gën a baax mbokk kaddu gi gën a baax ci kaddu yi mooy kaddu yàlla kaddu yonent yàlla am déet yonent bi alayhi salaam heure bu dem ibbi ay jataayam mbokk na lu mu daan wax inna ahsana alhadisi kitabullah lépp luy dégg lu ci gën mooy kaddu yàlla doonte ne malheureusement bokk na natt bu yàlla nattu julit tey juliti tey lu ne dañ ko dégg ba mu des kaddu yàlla mooy la ñuy tuddee ay dajey diine sëñ diw nee na sëñ diw nee na sëñ diw nee na sëñ diw jaamu na yàlla ba yàlla jël àjjana teg ci loxoom sëñ diw jaamu na yàlla ba kaza wa kaza yooyu la doomu aadama yi dégg amma la nga xam ne moom mooy ndigalu yàlla yi tere yàlla yi lu ëpp ci jaam yi déggootuñ ko la nga xam ne tey yàlla da koo farataaloon ci julit ñi mooy ajjuma june au minimum julit war naa dem déglu kàddug yàlla fas aw ila zikrillah malheureusement boo ñuy réew yi mel ne suñu réew quatre-vingt-dix pour cent ci jàkk yépp imam bi day ñëw ci mbooloo mi làkk ay arabam dem nit ñi li muy wax duñ ci xam dara mais gars yi nit ki li ngay dégg boo ko xamul ndax mën nga caa choisir la ca baax ak la ca bon déedéet su ko defee kon loolu erreur la boo xam ne dal na ko ci suñuy imaam du tax ñu saxal ko fi imaam war naa wax ak doomu aadama yi lu ñu dégg su ko defee yow jullit xamal ne kaw suuf ay wax bari na fi ay yoon bari na fi waaye leen rek ay dëgg qaala allah qaala rasulullah bépp wax bu safaanoog la yàlla wax ci alquran ak yonentam lan la waaye bul topp wax boobu bul topp wax boobu même bu dee dégg nga ko bu ko topp fa yattabinu ahsana borom bi nee na ñii day mooy ña nga xam ne jubal naa leen te loolu mooy li gën a rëy lu doomu aadama am ci kaw suuf mooy alhidaaya moo tax moom la ñu ñaan yàlla fukki yoon ak juróom-ñaar bés bu nekk te suñu borom mu ne ñii mooy ñu intelligent xoolal suñu bind tey bi ñetti yoon yàllaa ngi ci wax ulul albaab te ulul albaab boobu fukki yoon ak juróom-benn nga ñëw ci alquran amma bu dee borom xel yi yàlla wax na ko plus de trois cent fois waaye borom xel yooyu ñi nga xam ne seen xel yóbbu na leen ñu am ràññee la leen di jëriñ àdduna ak àllaaxira loolu lu néew la mooy ñi seen xel mat sëkk ulul albaab ñoom ñooy mën a xam ne li yàllay wax du changer jamais ñooy mën a xam ne li yàlla wax lu mu tumuranke tumuranke mooy dëgg ñooy mën a xam ne caaxaan lu mu siiw siiw neen rek la ulaika hum ulul albab baram boobu subhanahu wa taala ne ñooñu kon nañ leen bégal amma la nga xamee ni nii moom mooy la ci yàlla teg mu ne xoolal ki yàlla yeyal kàddu mbugal ci moom ndax am na ku ko mën a musal déedéet mbokk suñu borom yàlla am na ay jaamam yàlla bind na leen ci ñim nar a feesal sawara gannaaw ba seen xol tëjoo kenn mënu leen a waar ba ñu jubbante ko looloo tax masal ko mi ne abi lahab début l'islam la yàlla waxoon ne abi lahab sawara la jëm yonent bi nekk nag makka treize ans gannaaw ba yonent bi gàddaay bàyyi ko fa mais teewul ci sawara boobu ci loolu ci la dee loolu kon am na ñoo xam ne kàddug yàlla ga yey na ci ñoom borom boobu subhanahu wa taala ni ki nar a jëm sawara kenn lu ko musal ku dul yàlla amma ñi nga xam ne dañoo ragaloon yàlla yàlla mu ne la leen di xaar alaxira mooy ay taax yoo xam ne yàlla ko tabax ay kër yu yàlla tabax mabniya yonent bi alei salaam nee na brigue or ak brigue xaalis la yàlla tabaxi këri àjjana ba gars yi décor ba kon lu muy doon loo xam ne brique or ak xaalis lañ ko tabaxee lan mooy décor ba borom bi nee na day nekk xuraf yonent bi alayhi salaam mu ne kër yooyu da ngeen di nekk di ko séen comme ni ngeen di séen biddiw yi la nit ñi di séenee kër yi waa ajjana yi ba mu nekk téeméeri daraja ko defee ñi féete suuf naan daraja yi diwa nga ne diwa nga ne kër diwa nga ne kër bu nekk am kër yu ñu tabax ca kaw ca suufam dex ya ma ngay daw ca suuf dexi lem yee dexi sangare yee dexi meew yee dexi kaza wa kaza yonent bi alayhi salaam nee na du ne ci ay suuf lay daw ay du ay pax lay daw comme dexi àdduna bal ci suufu pale yi lay daw ci loo xam ne kenn mënu ko imaginer nu muy demee xanaa dem gis rek yàlla nañ ko yàlla won mi ngi noonu tajri min tahti al anhar borom boobu subhanahu wa taala nag ne lii de yàllaa ko jege te yàlla du wuute ak yi déggam yàllaa ko jege yàlla di wuute ak yi déggam te bokk na lu lay won ne loolu yàlla jege mën na ko mu ne xoolal xanaa gisu leen ne yàlla mooy wàcce ndox jële kaw asamaan dugal ko ci biir suuf daal di ko ci utal ay yoon te mbokk xam ngeen ni biir suuf dafa am yooni ndox soo gasoon fii benn teen da ngay gas ba jot ndox mi waaye tànqal ndox mi nga xool quelques minutes après mu alimenté waat mën nga ci jël lu mel ne masalan zam-zam zam-zam fa mu nekk makka makka année bi buñ ci amee trois taw quatre taw ci la yem mais xoolal zam-zam teenu zam-zam boobu nga xam ne xattaa ñu jóge makka indi nañ ci nga xam ne da ngay gis ne daan ci génnee loo xam ne nii dana mën a nandal deux millions de personnes ca ay mètre cubisé de mètre cube lay génne par seconde fan la ndox mi jóge ay yanaa bi yooyu nga xam ne suñu borom yàlla mi ngi ko def ci biir suuf muy ay ciwo yoo xam ne nii yàlla muñ muñ ci dencal ndoxam ci mbaaxam ak yërmandeem suñu borom mu ne xoolal bu ma ko yóbbu woon am kan moo ko mën a indi ina asbaha maakum xawra faman yaatikum bi ma'in ma'in waaye yàlla ñu ko dencal jàkk ji gis nga li ngeen di jàpp ne benn pompe la boo xam ne nii dañ ko branché rek mu dem ndoxum taw mi yàlla di wàcce gardel ñu ko ci kaw suuf moom lay pompe génne ko mi ngi doon di xéewalam waaye nee na it ndox moomu ci la génnee meññeent moo xam ne dafa safaanoo ay couleur benn suuf benn ndox lii génn verte lii xonq lii jaune ngay gis melokaan yi mbay yi dara bokku ceeg sa morom couleur fruit yi benn bokku ceeg sa morom couleur te sunu borom mu ne yusqa bi ma'in wahid noonu benn ndox moo leen di alimenté te ni couleur yi wuutee nu faddilu ba'daha ala ala ba'din fil ukul noonu la cafka ga wuutee jalla wa ala borom boobu nga xam ne kon moo diga loolu nee na lu mu yàgg-yàgg dafay mujj lax mujj wow mujj doon mbokk muy wañe ne mbokk dunduk àdduna mi ngi ni nii la mel gis nga taax yi li bari bari gis nga jongama yu rafet yi gis nga oto yi lay romb gis nga loo ci mës a gis ci bànneex bis dana ñëw lépp nekkat poussière kon ka nga xam ne àdduna kese nga doon xëy la ko gontal ndax pertoo waay kon nga xam ne lay jëriñ dëgg dëgg dëgg mooy la nga xam ne yaa ngi koy jiital mu lay fekk yowmal qiyaama loolu nag kan moo ko mën a xam suñu borom yàlla nee na mooy ulul albaab mooy borom xel yu mag yu ñor yi ñoo mën a xam ne adduna ay toll la yu ñu war a dajalee lu ñuy mën a amee ngërëmal borom ngiree am ajjana joo xam ne boo fa demee du cent ans du mille ans du un million d'années du un milliard d'années da nga fay sax ba faw nekk buur yal na yàlla boolu ñu ci borom xel yi waajal alaxira yàlla defal ñu jannatul firdaws ni suñu wàcce waay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain incha allah li jiitu Mouhamed Gueye bi jiite mbooloo mi taxawu néew yi faatu ci hôpitaux yi ca xamuñu seeni mbokk dimanche bi di ñëw am na néew yi ñu war a jële CTO di ñaan mbokk yi taxawu sangaay ba ñu fexe ba huit heures fekke leen fa amaa ñi nga xam ne julli gi rek lañ bëgg a fekkee di fexe ba dix heures et demi fekk leen ci armée lu yoo fiya yàlla na yàlla jéggal leen ci yërëm leen te fay yiw ña nga xam ne ñoo leen di taxaw waaw incha allah bismillah rahman dafa def niser gannaaw ba respecté wu ko kooku def na bakkaar niser mooy lan mooy masalan man de yàlla maa ngi wër liggéey rek mu të yàlla bis ba mu wutalee liggéey dinaa woor ñetti fan sante la ko masalan yàlla wërsëgal ko liggéey mu fàtte lam doon wax ak boroomam te loolu mooy lu mel ni liñ doon wax sànq daa rabbahu muniba ilayhi gannaaw bu yàlla indee xéewal nasiya ma kaana yaddu min qablu la ñuy jëkk a wax mooy kon loolu baaxul allahuma itamit yonent bi alayhi salaam dañu doon tere nisër yonent bi alayhi salaam dañu doon tere nisër au lieu que yow nga ne yàlla soo ma mayee liggéey dinaa woor ñetti fan jaamoo la ko comme mën ngaa woor ñetti fan xam nga lay def wooral ñetti fan jaamoo ko yàlla ne yàlla day woor naa ñetti fan jaamoo la ko yàlla may ma may ma liggéey gis ngeen mooy la nga doon wax ne yàlla soo ma defalee ma def comme mën nga ko def ko nga ñaan yàlla nga seet loolu ci wasila la yee moo tax yonente bi alei salaam dañu doon teree la nga xam ne mooy nisër mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw naam mu ne bàyyi léegi mu ne léegi dama tere sama soxna mees soxna si nanguwu ko bàyyi nee na ma nag léegi yow sa jaan wàcc na tere nga ma bàyyi mu man ma des ak sama digganteeg yàlla de mbir mi du demut noonu ndax mbir mi dafa yemul digganteem ak yàlla rek ak soxna si waaye góor gi da ci am responsabilité suñu borom dane ar rijal qawwamuna ala nisa góor ñi ñoo war a taxawe jigéen ñi su ko defee su waa ji jàppee ne mees bi dafa xaraam te it dafa xaraam te mees boobu mën naa dem ba yàq laabam ba yàq julleem kon kay def naan ko bàyyil mees bi daa di jëfandikoo lam mën a jëfandikoo yépp ca lañu suñu borom yàlla wax ci góor lam mën a jëfandikoo ak soxnaam ci la ci jiitu mooy waar ko delloo ko ci yàlla gannaaw ba mere ko ak yoon ya ci yàlla def yépp waaye daal li ma bëgg a wax du ne rek ne borom kër gi tere na njaboot gi ñu bañ ñu ne ko yow sa jaan wàcc na bàyyi na ko yàlla déedéet na ca def kem te layel kattanam loolee ba ba fa muy yem mu yem fa mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaw waaw parce que tubaab nee na la répétition est pédagogique. léegi màkk. li ñuy multiplier par cent mille maanaam benn julli ak la wala benn julli la ko xibaar loolu la bëggoon nga.
ndax benn.
benn julli la benn benn ak lay nekk wala maanaam benn julli banaan xibaar.
waaw yonent bi salaa sallam dane julli goo nga julli masjidul haram moo gën téeméeri junniy julli boo julli feneen fu dul masjidul haram. tisbaar boo fa julli. moo ëpp daraja téeméeri junni julli boo julli feneen fu dul foofu kon it ça veut dire que benn rakka bu mu ëpp téeméeri junni julli beneen rakka ba comme julli gi moo ko ëpp téeméeri junni ala kulli xaal loolu ci ngëneelu yàlla la yoo xam ne mooy gëneelu lu ko neex ci ay ay ay ay jaamam ndax noonu mu ko defee ngëneel ba nekk ci jaamu yàlla it noonu la bakkaar ba mel bakkaar ba nga def màkk yi mu la ba nga def feneen bal suñu borom nee na ku fa bëgg a def bàkkaar sax danaa ko mbugal mbugal mu tar loolu daal kon ñu xam ne ay ngëneel la loolu dana tax jullit bi xolam gën a sëw ko ci jëm màkka boo fa demee xëyrun boo fa demul it yii ne boobu dana la jëriñoo man qiyaama yàlla na yàlla defal ñu ko ñun ñëpp naam waaw ala kulli xaal yonent bi alayhi salaam daan wax naan kafaaratu nazri kafaaratul yamin lay kafaara niseur boo deful mooy lay kafaara la nga waatoon ci defoo ko la nga waat ci defoo ko suñu borom nee na na nga xool ay miskin nga jox leen fukki miskin lu ñu añee wala nga woddu leen ay jox leen lu ñu mën a jullee wala nga wor ñetti fan kon su ko defee soo ne woon danaa dem jàng nangam ci alxuraan dinaa woor nangam ci koor dinaa def nangami nangam nisër boobu soo ko bëggee kafaara la nga koy kafaara mooy la ma lay wax mooy ñett yooyu nga xam ne ci la ñuy kafaara yamin ca loolu it mooy boo demee dem ba nangoo ba naroo matal nisër bi nga kafaara ko moo gën nga bàyyi ko noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam naam ala kulli xaal ndax jëkkër am na droit wax jabar soo ma defarul lii du ma la defal lii bu dee ne ca la sharia na sant jabar mu defal ko jëkkëram loolu jëkkëram am na ci droit wax ko ko amma ndax jabar moom am na droit ne jëkkëram soo ma defalu lii du ma la defal lii loolu moom jabar amu ci droit ndax moom yàlla da koo sant mu topp ndigalul jëkkëram lu dul ci lu xaraam wala lu mënul wala lu koy lor jigéen lépp loo xam ne nii jëkkëram digal na ko ko xaraamul du ko lor ca mën na ko islaam dane na ko def amma nag lépp lu koy lor na doon alalam jum ko laaj wala leneen ak leneen yu boobu moom su boobu am na droit bañ wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaw waaw ala kulli xaal li ñuy limité ci jàkka ji gis nañu ne mooy li ñuy limité nii ne mooy jàkka ji amaa ne li kuuru jàkka bi la moo tax ñu tabax fa ay douche ak ay jàppukaay yu kenn xamul su ko defee kon duñ ne ku dugg ci kuur boobu da ngaa war a def tahiyatul masjid amaa boo duggee ci lii nga xam ne moom dañ koo délimité tudde ko ne mooy jàkka lee ñu tudde ne mooy kuur boo fi duggee moom bala ngaa toog da ngaa war a def tahiyatul masjid mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw non ndax nit ki bu faatoo xale bi faatoo dañ ko war a reyal ala kulli xaal bokk na ci loo xam ne nii borom xam-xam yi sopp nañ ko mooy bu dee dafa ñëw mu indaale la nga xam ne mooy bakkan su boobaa da ngay gis ne bu doon bàyyi ma ko jëkkër dee moom day bokk ci ñiy donn ñu ne nag maadaama indaale na bakkan kon lu mel noonu sopp nañ ko mu doon ku ñuy reyal bakkan ndax indaale na bakkan faatu na amma la nga xamee ni nii moom la gën a nekk dëgër ci sunna mooy mu dundoon ba am juróom ñaari fan su boobaa moom da ngay gis ne sunna la bu dëgër am ñu ko yóbbu sax ci waajib ci ñu reyal ko bu jiitu loolu nag loolu nekk na ay ngëneel wallahu subhanahu wa taala alam donte ne bu dee ne yow defoo ko it loolu amul lenn loo xam ne nii lu la ca teg mooy juddu na indi na bakkan waaye daal di faatu su boobaa nekkul luñ lay sant nga defal ko ko amma bu dee ba am juróom-ñaari fan moom bu ko sa kattan mani da nga ko war a reyal wallahu subhanahu wa taala alam waa la kuy day laaj mu ne ndax nganale nekk na loo xam ne sunna la ala kulli xaal mbokk nganale moom ki jóge Makka ki jóge Amérique ci yem mooy bu dee ne xëy na sama mbokk la dem na Makka rawatina dem Makka yu jëkk yi nga xam ne da daan duré ay weer wala kaza wa kaza ñëw na waa kër gi kontaan nañ toggub añ su boobaa loolee nekkul loo xam ne nii lu ñu bañ la ci lislaam amma nga ne le ni ko diriyankay ndakaaru yi defee ah su boobaa loolu nag la ñuy wax ndax da ngay gis ñoo xamee ne nii mbokk seen i nganele lañ cay dépensé yàq dëgg dëgg dëgg la ba bal da ngay gis ñu dem ba mën a dem Makka ca mi ngi noonu wallahi sama mbokk bi laaju fajur gay benn sëram wax na ko ko nee na ko bu doon paas bi kese woon am naa paas màkk waaye nag ngane la laaj sëri jëga laa matalagul yaa ngi dégg ma kooku bu dee li mu wax yàlla subhanahu wa taala parce que dañoo war a nganale goo xam ne nii mbokk yépp ñëw ñenn ñi dañuy rey nag ñenn ñi dañuy nangam xalamkat yi fii nganga yooyu mbokk suñuy puukare la ñu boole ci yàq bu dul jeex waaye daal bu yemoon daal ci ne kii mooy bàyyi tukki woon na def na 15 jours def na un mois def na nangam ñëw na waa kër gi kontaan nañu soppi seen añ soppi seen reer xarit yi daan ñëw ci moom ñëw ñu togg añ togg reer ñu yemale ko foofu loolu da ngay gis ay islam bañul loolu mi ngi noonu. amma keneen ki di laaj mooy lan mooy ngëneelu zam-zam zam-zam sunu borom subhanahu wa taala moo ko may xeet bi yépp depuis bàyyi Ibrahima alayhi salaam ñu koy barkeeloo su ko defee ab jullit da koy barkeeloo. mën na di ko ñaan di naan di ñaan yàlla saafaral ko ay jàngoroom ak lu deme noonu allah kulli xaal benn ndox la ñuy barkeeloo ci ndox yi nekk ci kaw suuf yépp mooy zam-zam doomu aadama bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu masaan aj yi mook sahaaba yi dañ caan dem daan di ca barkeeloo mën nga it booy booy ñaan ay soxla lépp ci barkeelu zam-zam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi walla waaw ñu mujj ci mbokk bala rek dafa xaw a guddi bismillah waaw ah ah ala kulli xaal doomu aadama yi gis nañu ne bokk na sax lu tubaab di wax naan tout texte est nuisible te mooy li ñu tuddee al xulu ak ëppal su doon te ne li ñuy tuddee ab réserve da ngaa suul fii sa mbokk am benn place boo xam ne place la bu ñu mën a réserve bu ndaw nga ne kii kat maa ngi am yéene sama bàyyi xëy na fii laa ko suul bëgg naa fee suul sama yaay wala man suma dee ñu suul ma fi loole da ngay gis ne asl bi nekkul lu ñuy mën a tere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko rek bi Usman ibnu Mazun faatoo daf ko suul gannaaw ba mu ne indi leen ma xeer bale ma teg ko fii ngir xàmmee ko sama doomu ndey bi ngiree di fi suul si samay ahlul bayt sama mbokk yi nga xam ne sama njaboot te loolu moo tax njabootam gu ñoom fi ngeen suuf am naa lii commencé am yoof loolu moom mbir la boo xam ne nii erreur la ndax gars yi ngi commencé léegi di dagg ay 7 mètres nii di dagg ay 10 mètres tey da ngay gis bu ko ñëpp defoon kon armée li jeex di kenn am dootu am fu ñu suul su ko defee kon loolu mbokk daal dañuy gis ne fu benn nit mën a tëdd wala xëy na ñaari nit mën a tëdd peut-être loolu mën na ko nangu waaye ku nekk ñëw jënd sa terrain ku ne ñëw jënd sa terrain day dema deme dem ba. baaw doole kenn dootu ko suul yoof mi ngi noonu ndax patron yi dañ ko séddoo loolee moom ak ëppal la goo xam ne mairie bi waru ko seetaan wallahu subhanahu wa taala alam ah wasal ah na ah waaw fleur yi fleur yi ñuy teg ci kaw bala ñuy wax fleur tabax bi la ñu njëkk a wax parce que en général ku tabaxul doo fleur nañuy xam ne mbokk tabax bàmmeel boobu ngay def yeneen ci bi alayhi salaam dakaa tere ngal la waaye tey bi ñu yàlla ubbilee àdduna foog naa kenn ëppul alal waa Arabie Saoudite kenn ëppul luxe waa Arabie Saoudite waaye xam ngeen fa buuru Arabie Saoudite bi faatu xam ngeen Abdullah bi faatu xam ngeen ñi ko jiitu bam seeni bàmmeel ak bàmmeelu barakat yaayam ab jal suuf ak benn xeer jal suuf benn xeer ci bu dee alal Arabie Saoudite la fekk baax moom ci boppam Fahad boobu rahimahullah bi muy def agrandissement ñaari jàkka yi Makka ak Madina ñu ngi ci dépense cinquante milliards de dollars Abdullah mi ko wóotu nga xam ne moo indi agrandissement yu mujj yi lan ca dépensé kenn xamu ko moom ci boppam ci xaalis personnel am tente yi nekk mun a moo ko moo ko dépensé gannaaw événement yi fi amoon en 97 cinq milliards de dollars kii kay am na luñ tabaxee bàmmeelam am déet waaye ab jalb suuf la su ko defee kon sa bàyyi sa yaay soo bëggee li ko jëriñ dee ko ñaanal dee ko sarxeel waaye néegu ñax ba ngay def ci bàmmeelam ak palais or ba nga fay def loolu yàlla bëgg ko sunu sëriñ si fi nekkoon amul kenn ku ci tabax bàmmeelu baayam galluwaay boo ko xam ne loolu de mbir yi seeni doom kay ñoo ñëw changé mbir yi waaye sëriñ su mag si nekkoon Sénégal amul kenn ku ci tabax bàmmeelu baayam yàlla yàlla dépp la ñu sunna moytu ñu lépp lu ñuy yàqal suñu diine wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain